jékkuwul jaaduwul jékkul jaaduwul en tant que capitaine di france boo xam ne la koy répété fële ci réewum France surtout journal ya ak télévision yi yëngu ci wàllu sport ba sax ñi yëngul ci wàllu sport bari na lool Kylian Mbappé xeer yi ak doj yi mi ngi jóge fu ne gars yi di ko dóor ci ndongam xom ma dana wàññeeku wala du wàññeeku mook fédération conflit la ñu am bu mel ni sax bi am ci diggante Sénégal ak ki li nga xam ni moo nekk Euh, Ismaila Jacob waaye nag bu Sénégal bi réglé nañ ko ci fulla ak fayda ginnaaw ba ci Aladji Malick TV ak i ñoñam ñu bëree bëri ci ñuy wax ci wàllu sport ma bañ a personnalisé wax ci boo waa fédération nag fexe gone gi nu mu agsee agsi na fii ci Ndakaaru waaye Kylian Mbappé nag du bokk ci match bi nga xam ne France ma ngi koy amal lu tax moom mii di entraîneur français bi jàppoon ni nag moom di Didier Deschamps gone gi da ko bañ a sélectionné ngir maanaam li nga xam ne nag amoon na ko ci ak nopp lu du dëgg loole du kàddu yi nga xam ni bokk na ci ñi ne ca France bañ nañ ni gëmunu loolu li ñu gëm mooy capitaine équipe nationale France donte moom moomee di euh, Mbappé bu ñëwee du football waaye na ànd ak groupe bi ànd ak gone yi magal leen euh, ci wàllu expérience ak xel bu ko defee fuñ mën di ànd ci wàllu football meilleur ñu ànd ak ñoom ca Clairefontaine entraînement yi gunge gone bu baax a baax waaye defu ko xanaa di ko fa wàcc naan ko Mbappé day noppaloo Mbappé nangam ak nangam moom gaa ñi mere nañ ko moom mii di Didier Deschamps ba futtu tayit mer man ànd naa ci ndax wax dëgg yàlla responsable bu day ni euh, Didier Deschamps wërta bàyyi Kylian Mbappé maanaam biir Espagne mu fay nekk di gondaan daata ko wëtër wëtëri loolu ànduma ci bu baax a baax mere ngay nañ ma baal te jéggal ma Brahim Diaz commencé na entraînement yu saf euh, sàpp euh, yokk na doole yokk tamit li nga xam ne mooy ay dawam bu baax baax a baax loole nag moom marocain bi ñu bëree bëri ci supporters yi merengue yi bëgg nañ ko mu gën a continuer di doxal noonu continuer ga nag dana am solo bu baax a baax waaye keneen koo xam ne tamit gis nañ ni maanaam foofee ca Espagne tey jii daw na bu baax a baax mooy Mbappé tamit Mbappé Mbappé na fële ñax mu tooy ma nekk fële Espagne waaye nag rien à voir xam ne moom la ko waa France di euh, rapproché ndax loolee mën nu cee delluwaat Kylian Mbappé